Aujourd'hui, je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marque les grands peuples. Vous avez constaté depuis la demi-finale déjà la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais uni dans sa diversité autour de nos lions et de notre équipe nationale Je voudrais vous féliciter et demain j'aurai l'occasion en vous recevant. Bien sûr, je vous attends au palais ce soir. Je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et tout le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple. Le peuple debout derrière son équipe nationale. Unis, hommes, femmes, jeunes, vieux, et tout le peuple qui est venu nous plébisser, mes chers lions. mon cher Aliou Cissé, l'entraîneur qui a reçu la plus haute distinction, le plus grand palmarès des entraîneurs sénégalais. Il a gagné la Coupe d'Afrique des nations de football. Aliou, bravo. Avec les Lions, ces Lions qui sont rentrés dans la grande histoire de a été recherché par tant de générations de footballeurs, de sportifs, de membres d'encadrement. En ce moment précis, je ne peux pas ne pas penser aux grandes figures de notre football. Je ne peux pas ne pas penser à Mawad Wad, à Paul Lamine Diack,

Jean-François Bocandé. jean de grands coachs qui étaient avec nous, comme le coach des années de la génération des El Hadj Fadiga. Bruno Metsu. Comment ne pas penser à Fort Papa Bouba Diop? le musée du football que vous pourrez apprécier à partir du 22 février dans une quinzaine de jours ici à Diamniadio. Ce stade qui sera le plus beau de l'Afrique et vous le constatez grâce à votre talent. Merci donc au coach Alun El Tactico. ne voit beaucoup, il fait pas de il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. pour tous ceux qui sont avec toi par la force tranquille, par la sérénité imperturbable. Vous avez montré vos qualités de meneur d'homme. Merci également à la Fédération sénégalaise de football. Notre Augustin Senghor et à toute son équipe Conseil fédéral. Merci naturellement au ministre des Sports, Matar Ba, au qui a toujours été à vos côtés pour que notre équipe nationale ne puisse plus jamais connaître les déboires qui ont été le lot par le passé. Mais merci surtout au 12e Gaïné et à Alain Kaza, ses supporters partout dans le monde vous ont accompagné. La nous le savons, ne l'oublions pas, est une fête avant tout africaine. C'est une fête de la jeunesse, la jeunesse africaine, c'est une fête du football africain. Permettez-moi, ici depuis Dakar, de remercier et de féliciter le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne organisation de cette CAN Je voudrais également, en ce moment précis, féliciter et remercier le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et son équipe, l'équipe de Pharaon, qui s'est inclinée devant les vaillants lions de la Teranga. L'équipe d'Égypte n'a pas démérité. C'est une grande équipe que vous avez battue. C'est dire combien votre sac est méritoire et combien nous vous disons merci. cher Kalidou Koulibaly, cher Léon, j'aurais voulu d'ailleurs passer par chacun de vos noms individuellement. Mais je sais que le peuple vous attend et commence à faire nuit. Et vous devez aller à sa Demain, je vous recevrai avec toute la République. Au-delà de la République, c'est toute la nation qui sera là demain devant le palais de la République. a partir de 16 pour vous dire ce que le Sénégal fera avec vous, pour vous donner une récompense à la mesure de vos efforts et de vos résultats. gàcce ngaalama dem ngeen ba jeex indi coupe bi jërë ngeen jëf dégg naa itam yi bi nga xamante ne tey Sénégal yëpp fi daje ndax lii amul kujje amul gouvernement amul opposition peuple bi moom moom ndam li peuple bi ñooy teral lion yi li moo waral li may ñëw si suba laa woote ministre de l'intérieur ne ko fexe leen ba jot opposition bi ngeen ne leen président bëgg na ngeen ñëw yéen it fekkee teeru bi ndax ci ngeen bokk li ma bëggal équipe bi moom ngeen bëggal équipe bi te boo leen newoon fii ma nekk moyen yi ma ci def gëm naa ne di ngeen ko def pour ndam ji ñëw kon yéen it ñu sant leen bu baax ndax lii mooy Sénégal dafay am jamono yoo xam ne mbiru kujje dañ koy teg fële bu feete ba pare après nag ñu jógaat ñu loolu warul yàq li nga ne moo ñu dajale moo ëpp solo mooy Sénégal loolu lañ fi gis ma kontaan lool loolu nag gone ñooñu ko may muy lion ndax seen taxawaay seen njàmbaar seen fit seen jom parce que nag coupe bi ku amul jom doo ko indi sa réew amul fit ku reyantewul doo ko indi lii moo tax ba ma leen di too drapeau bi ma ne xam naa ne moon ngeen football loolu kay kenn du ko werantee xam naa ne yéenay première équipe de l' Afrique kooku FIFA moo ko wax waaye tey li des mooy arñe bi ak xeex bi nga xam ne mooy tax nga def ko ni ngeen ko defee ci match yi ngeen def yëpp surtout à partir des quarts de finale de demi-finale et hier de la finale face à l'Égypte. Vous avez dominé tout le match. gàcce ngaalama gane Ndiaye Mbarawaj def nañu ci turu bi yëpp maa ngi leen di jox rendez-vous ëllëg ci yàlla àndee ci buntu palais de la république yéen ak seen i njaboot bu famille ngir Sénégal tatagal leen teral leen ndax ndam li ngeen ñu fierté bi ngeen ñu may ba tey Sénégal ci àdduna bi yëpp moom la ñuy wax parce que moo xew ci jamono kon jërë ngeen jëf yéen kay di jaay jërëjëf Aliou Cissé yow mi nga xam ne yaa leen ak sa équipe jërëjëf fédération sénégalaise de football nga dama gis tey Senghor ak ay nitam waaye nag jërëjëf Matar Ba yow comme ay gaaf ak seen parti